asalaamaaleykum ma defar ci lu leen neex indi ci leen ku ngeen nam parce que euh, am na léeg ci téléspectateurs yi ñu may woo téléphone avant ñuy diffuser ni ma Ablaye tey ko am comme invité ma wax leen que ñu ne ma li nga koy laaj moo di léeg-léeg da ñuy indil ku ñu gëj a gis depuis une trentaine d'années mu dolli ci ni ma émission bi dafay feeñal ñoo xam ni dañ leen daan dégg déggatuñ leen gisatuñ leen gis leen 30 ans après dafa mel na que renaissance loolu moo di euh, sac bi ci ñëwoon démb invité tey bi duma leen wax tout suite kan la dama leen di bàyyi mu nuyoo ko yéen ba pare ngeen jéem ko xamee ma soog a nag indi turam defe naa ni euh, xorom la ci parce que koo gëj gis xëy na il y a 30 am na ñu ma naan peut-être il y a 40 gis nga dañuy sport di def koo gëj gis il y a 40 soo ko gisee ba tey mu mel na que xaleel bu tuuti alors kooku laa leen indil. kon ma jébal ko kàddu gi mu nuyu téléspectateurs yi nuyu auditeurs yi ñu soog a jublu ci waxtaan bi. merci jërëjëf lay ci invitation bi parce que xam ñëw télévision moom yombul si man parce que liggéey moo bare. <laughs> wax nga dëgg. donc euh, maa ngi jégalu parce que invité ma plusieurs fois ñëwuma mais expliqué naa expliqué naa lu tax donc euh, vraiment maa lay gërëm. jërëjëf di di gërëm tamit public bi ak ñu ngi seetaan ci télé. jërëjëf alors wax na ko. invité naa ko mais dama ko doon settali boobu invitation parce que public bi ñoo ma ko doon laaj léeg-léeg ñu ne ma laaj gisaguñu Mbaye Fall de mais Mbaye Fall moom dama koy boole public bi parce que chaque fois dama naan invité naa ko ñaari yoon mu dribblé ma moom dama koy boole public bi alors invité tey bi nag am na ci ci yéen ñoo xam ne ñu ngi jéem indi tur yi pour teg ko ci kanam gi évidemment il a changé surtout ci wàllu coiffure bi jamono ji goo xam ni la woon ah jamono euh, euh, euh, chevelure bu tufi soo ko gisee bopp bi def nel mën na la réeral Moussa Camara big boy <laughs> ancien capitaine du Jaraaf de Dakar def un championnat du monde avec euh, euh, championnat du monde universitaire et ancien euh, footballeur bu nga xamee ni on a gardé de lui de merveilleux souvenirs Moussa on va commencer par ton club bi nga xamee ni def nga ak moom lépp ba ci doublé. Mm-hmm. en 1975. Mm mm-hmm. au Jaraaf. Ah, moom moom jaraaf daal moo mooy sama mooy sama lépp jaraaf moo ma yar euh, depuis cadet cadet laa commencé football. Mhm. dem jaraaf junior euh, perdre finale la Coupe du Sénégal après jouer équipe réserve bi xam nga xale ndaw laa woon. te aw te aw woon taay. oui oui football après dem nag équipe première de jaraaf. fekk fa ñëpp nekk internationaux. muy ñoom mhm. Mbaye Fall Badou Gueye Baye Touré Sylvain mhm. équipe bi yëpp. Mhm. saa duggee jaraaf en 74 75. Euh, bu ñu duggee jaraaf da jaraaf dafa nekkoon équipe boo xam ne temps yii dafa amoon difficulté parce que mhm. nekkoon nañ sax si si si si suufu classement bi. oui année mu commencé jaraaf seen premier match la jaraaf jël champion du Sénégal. du mhm. coupe du Sénégal. mu duggee jaraaf jaraaf peetu benn match bu championnat bi jeex. donc loolu mooy sama palmarès jaraaf nekk naa aussi champion du Sénégal en 75 76 aussi. voilà mu ñetti année de suite loo xam ne jafe na jafe na jafe na am jafe na Sénégal def naa palmarès moom ñu ko am moom barewul xanaa jaraaf ñoo ko am donc vraiment je dois tout au jaraaf vraiment remercier de ce jour ak sama sama copain yoo xam ne gisuma leen foofu la yaroo nag même même bien que jàmbaar laa nekk mais jaraaf foofu laa yaroo kon dama leen di tel indil image yi nga xamee ni dafa euh, wane Moussa Camara carrière bu mag bi mu def ak partenaires yi nga xamee ni ñoom la amoon en équipe nationale moom Moussa kamara Big Boy image yi ngeen janool année bi jaraaf dafa doublé moo di ñaari coupe yi ngeen gis nous sommes en 1975 ci seen droite fi ngeen di écran bi ngeen jëndool ci seen droite Moussa Camara moo nekk ci diggante euh, ñaar ñi nekk ci seen droite Moussa Camara Big Boy nous sommes en 1975 ci kawam. ma continuer Ndofène Fall booba temps mook Ndofène ñooy milieu jaraaf euh, ci kaw Ndofène di euh, Seydina euh, ci boo wàccee fii ci suuf di Karim Dias année bi Karim jas moo di entraîneur u yaat ma Diop moo nekk noonu ci wetam ma Diop di directeur technique ci seen diggante ñoom ñaar ah, di gardien de but titulaire ba di Birane Ly ci euh, euh, seen gauche donc ci droitu Birane Ly Ablaye Ba soo wàccee Léopold Diop moo nekk noonu ci suufu Léopold Diop Mbaye Mbengue Diop moo nekk noonu ci suufu Mbaye Mbengue Cheikh Fam moo nekk noonu ci suufu Cheikh Fam Ibrahima Ba Eusebio soo continuer ci gauche Eusebio xaw yéeg tuuti di Badou Gaye boo wàccaatee muy Demba mbay boo yégee ci kaw Demba Mbaye nii tuuti di Mbaye Fall Mansour Ciss moo nekk noonu ci wetu mbay Fall nga yéeg après Mansour Ciss di Baye Touré ñu dellu si kon ci fi ñu jóge woon Moussa Camara Big booy mi nga xame ni moom ak Ndofène Fall ak Eusebio at mi ñoo daan awante capitana bi au Jaraaf xam nga réalisé deuxième doublé Jaraaf en 1975 doy na tegtal carrière bu nga xamee ni mën na servir de carte de visite kon Moussa Camara Big Boy lay dalal indil leen image 1975 yi nga xamee ni at moomu jaraaf dafa doublé champion du Sénégal coupe du Sénégal ak suñu invité bi ci plateau bi tey musa Camara Big Boy Moussa avec le Jaraaf nga def le deuxième doublé du Jaraaf mhm. celui de 70 ñoom Liu Camara ñoom Adnan Farhat. ñoom Matar ña ah, yéen ngeen def le deuxième en 75. c'était également non seulement un grand doublé mais un grand jaraaf. waaw c'est un grand jaraaf jaraaf depuis année 70 moom ay grand footballeur ñoo fa nekkoon Matar Nia wax duñu wax kan euh, Louis Camara. Louis mm. Gomis. Mm. ñooñu noonu seetaan bi xale. ñooñu ñu poussé ñu football la ñu bëgg a football ñoo parce que jaraaf eh, yaru yi la yaru yeewu yeete la woon ñu xam ñu ñu jaru si ñu xam loolu dugg jaraaf pour pour pour yëg yëg li seen euh, liggéey parce que boo affaire yi moom euh, boo gisee ay modèle da ngeen da ngeen bëgg a copier. Mhm. te temps yooyu ay grand footballeur lañu ay spectateur du doon football pour le pour le plaisir de jouer. Mhm. nekk loo xam ne bon dafa jafe dafa nekkoon ja nekk dafa dafa euh, jafe woon. jafe na woon trop pour pour Jaraaf. waaw nekk champion du Sénégal tamit jafe na woon trop mais Jaraaf tamit famille la woon tamit ci famille bu mag la. oui nga dugg nag football la football la remplacé ay Louis Gomis Louis Camara kooku moom. voilà vraiment c'est un exploit parce que ñooñu tam li fi bàyyi loo xam ne. dafa dafa lu bari remplacé kon mi ngi nii Moussa Camara big boy Jaraaf de Dakar équipe nationale du Sénégal ay année 75 jëm 78 euh, def doublé avec le Jaraaf en 75. Euh, euh, deuxième doublé Jaraaf boobu nga xam ne milieu terrain yi c'était vous aviez Léopold Diop Ndofène Fall Mansour Ciss quelqu'un m'a dit un jour Big Boy culot moo tax mu nekk titulaire parce que ñooñu ñëpp avec avec leur leur gabarit au début ils présentaient mieux mm. euh, Moussa Camara s'est battu pour être titulaire au Jaraaf tu es d'accord avec qui tenir non absolument parce que xale bu ndaw laa woon l'époque parce que mu joué Jaraaf j'avais à peine ans vingt ans bëgg ñuy ñuy ah, joué championnat Sénégal à vingt ans euh, euh, époque boobu pare woon hmm. te Jaraaf dafa nekk équipe bu nekk ñoo xam ne ñu fa ne même remplaçant sax internationaux nañu la ñu woon hmm. Birane Ly ñoom fii Mbaye di na Fi Seydina Blake euh, milieu terrain boo xam ne am na Mansour Cisse am na Ndofène am na am na Léopold am na Boy Band ñëw. bon ñooñu ñëpp am am nañu seen carrière. donc il faut nga loo xam ne da am fit. am fit dëgër fit te man comme man euh, booy Dakar woon te <laughs> la woon. et sam papa tamit xam nga si moom tamit moo si jëf si politique bi. dafa amoon fit def naa loolu moo tax ma football parce que Jaraaf à l'époque j'ai fait 1m66 50 euh, kilos waaw pour football si équipe première championne du Sénégal day day métti ba amul fit nag doo football ah, xam ne wóolu sa bopp tam xam ne sama sama sama lu ma yore sama potentiel pour mun a défier les les grands joueurs ñu nekkoon du Jaraaf Moussa Camara Big Boy équipe nationale du Sénégal Jaraaf dana ma wax tout à l'heure pourquoi Big Boy mais xam nga léeg-léeg dama naan boo janook international dafa am toujours benn match référence yéen a ngay fàttaliku Sénégal Nigéria ba woon Euh, ba policier nigérian yi songee juuse pour dindi nee nañu dañoo wut téere ci tànku ci tànku juuse ci baa bi policier bi moo songu juuse un attaquant sénégalais di wut téere ci tànk bi ñu jël ay chien policier teg ko ci banc bi wetu ma wàdd ma wàdd dafay geste sax policiers yi chien policiers yi di ko xaw a di ko xaw a attaqué Moussa mu ngi woon ci boobu ci boobu match euh, defe naa ni ci sa carrière ci match anecdotique yi boobu ci la. ah si la boobu kay moom match bu am enjeu la woon. parce que dañoo fekk ñu gagné Nigéria fii. fii 3 1 fii ñu war ñu war gagné foofu obligatoirement. Mmh. quel que soit ñu waroon gagné. exact donc euh, ñun xam ñu woon loolu vraiment doon été surpris parce que Sénégal fool ñu xamoon. oui oui moom laa sax day am bëri ñun mu nekk feet mais situation dafa demoo doy waar. parce que dafa am pression am ay menaces même bu nu nekkul lépp intimidation waaw metti et condition yooyu doo si mën a am performance parce que yéen yi jaru ko mais mawaat nag dafa nu ko dëgër fit mawaat ab bantouche bi du ñu jël suñu calme ne leen topp nu ñu fubaloon fi nañu fut li ñuy def bu ñu fi def loo xam ne demee nuñ duñu day ñaaw football sénégalais ñoo comportement exemplaire digne boo xam ne même gars yi sax mais woon la dignité loolu moo doon loolu gën a frappé si match boobu parce que lu day jeex image lu ñuy nekk si mhm. suñu dëkk suñu dëkk lu ñu ko exact on est de ce match là et l'image du Sénégal n'a pas été par rapport à notre comportement loolu moo gën a am sens quoi alors international de Mawade Wade ku ko nekk doo como euh, Mawade en équipe nationale en année bi ngay ñëw Moussa. c'était en 76. la woon après la Coupe d'Afrique des clubs champions contre la AFIA. oui oui. donc euh, on est pour le Nigeria pour Lagos. Donc Mamad, bon, on n'arrête pas de rendre hommage parce que c'était un monsieur. Voilà, donc Mamad, mom, quel doit dialoguer quoi. kon euh, def nga Jaraaf Afia. Jaraaf Afia bi ñu bi ñu defee fii 2-2 te mën na leen 2-0. waaw après 6 minutes. Bachir Sarr marque un troisième but non encore. man maa bi kii kii ko ba Baye Touré raté ko. Mangoogu waaw ci 3 bi. la ñu la ñu on a fait 2-2. dem au retour. j'étais l'homme du match sax kon Afia. <laughs> à Dakar du match. waaw l'homme du ah, c'est vrai que boobu li ñu éliminé saison bi dafa tëj. waaw ah, dafa tëj Yaraab joué wul. joué wul mais dañu on a on a aucun fait ba dem def match de finale coupe d'Afrique kon. Afia ñu au retour petit Sékou Touré moo ñu may ay keesu ananas ku ci nekk. maa ngi woon maa ngi woon foofu match retour moom du ko match retour parce que vraiment bon on a contre coup euh, préparation bu bu bu manque de préparation bu ñu defoon à l' époque. oui oui coupe d' Afrique boo dee préparation da nga ko jox akam. exact voilà te joxuñu ko akam moo tax ñu ñu perte kon Afia. voilà mais defal Afia à l' époque 2-2 ici au Sénégal bëgg nga gañ bëgg nga gañ 3-2. oui oui mu mu rëcc kooku exploit la woon. à l' époque parce que exploit Afia dafa dominoon Afrique à à l' époque. voilà Moussa Camara ngi nii big boy. Euh, tout de suite après ñu perdre que de vue ma laajte ñu ne ma Moussa est allé en France mhm. Moussa loo defee woon en France en 78. 78 waaw loo loo defee woon en France. lu ñu yóbbu en France mooy d' abord euh, Séné euh, Jaraaf d' abord dafa gagné dafa dem deux quarts de finale de la Coupe d' Afrique kon Afia kon Hearts of Oak. waaw euh, deuxième quart de finale bi lu ñu perdre 1 match boobu sax man kenn ni mënoon naax gagné parce que am na occasion yu bari yoo xam ne naa ko raté <laughs> ah dëgg la mais j'étais pas attaquant c'est pas une excuse oui oui mais après comme on avait le euh, l'ambition de de gagner de de de faire une troisième coupe d'Afrique mhm. et d'aller jusqu'au bout cette fois-ci mhm. pas en quart de finale mais d'aller en demi-finale mhm. bon ñu ne bon année bi moom c'est Jaraaf dina dina dina fa sore malheureusement suite aux incidents match bi ñu amoon contre Nigéria. waaw euh, gouvernement jël décision Sénégal suspendu toute compétition internationale léegi. oui oui donc dootuñu def Afrique léegi. comme ñun gagné nañu trois fois champion du mhm. si dëkk bi gagné coupe du Sénégal nga ni dara desetul ñu ne ñu nañ dem bitim y avait des études aussi parce je voulais faire des études en droit. à l'université de Paris 13 voilà. Ah, de la de droit. admissible pour la licence en droit bon après j'ai eu malheureusement ma dans une euh, région boo xam ne en Savoie si montagne il y avait pas de de, de faculté. Mmh. et il faut la ma carrière d'entraîneur avec euh, l'un des premiers entraîneurs euh, sénégalais. oui à fréquenter à l'époque avec euh, ñoom Fernandez ñoom Girard ñoom Bruno Metsu. comment ça s'appelle encore euh, Elibo. Euh, on a fait le centre le le certificat formateur ensemble. ensemble bi ñu sax bu ñu ñëw Sénégal woo woon ne ma est ce que yow da ñëw est ce que yow euh, bu dem Guinée la ma woo ne est ce que du ma Guinée man Sénégalais la. Mhm. dinaa dinaa foofu jógee Guinée di laaj ñu ñëw Sénégal ah, voilà waaw donc bëggoon na waxoon na xam man si à Clairefontaine pour ñu jàppale parce que xamoon football africain comme ñu amoon j'étais l'un des rares africains à mais xam ko comme ni ma nekk woon Guinée mënu woon dem Guinée. ci ci promotion boobu y avait un joueur de Saint-Étienne du nom de Saramadi. ah oui les grands joueurs de Saint-Étienne y avait beaucoup de joueurs. quelqu'un m'a dit euh, quelqu'un m'a dit Moussa Camara Big Boy mook sa ancien joueur ñooy defandoo. waaw stage ma ne ko lequel mu ni ma Christian Saramadi. waaw y avait beaucoup de grands après na Christian Lopez yëpp j'en ai fait j'ai fréquenté tous ces tous ces tous ces grands entraîneurs. mais mhm. actuellement qui sont dans les dans les clubs les plus. yow kon tu aurais pu entraîner en France. mais j'ai entraîné en France. ah bon j'ai entraîné en France pendant au moins une vingtaine d'années man maa doon coiffé toutes les équipes euh, dans les régions dans les municipalités que, que j'avais mmh. au niveau senior ba ba xale yi ba ci catégorie j'avais au moins une dizaine d'équipes à yu ma doon yu ma doon man maa doon en France en France 30 ans en France et aussi euh, là-bas comme aussi ah d' accord euh, finalement lan moo la décidé nga ñibbisi. Sayer Seck moom a tooñ. Sayer <laughs> Seck jàmbaar. Sayer Seck moom di jàmbaar waaw Sayer Seck moom moom moom présenté projet jàmbaar duñ ko wax sax ne benn entraîneur bu nekk foofu en France bi entraîné est ce que. ah dañ leen présenté fekk moom moo ko wax mu woo ne ma est ce mu nga ñëw jàmbaar jàppale ñu projet bu bees la quoi ma ñëw bu ma ñëw première année bi ma ne ah fii daal amul dara ma delluwaat <laughs> delluwaat daw mu woo mën nga daal vraiment man daal Sénégal daal dara amu fa quoi. bàyyi ma toog fii rek bàyyi ma <laughs> France mais nag moom moom euh, il est très intelligent. donc euh, mu ñëwal xoolaat encore. mu ñëw xool maam kersi delluwaat ma mhm. depuis 2004 nga moom di liggéey jàmbaar depuis 2004 2004 xam nga am na ñu xamaloon ñu bëri xamuñu ko dama tëju foofu di liggéey rek <laughs> ah, waaw foofu ñu liggéey asali asali waaw comme daf léegi moo ma jox responsabilité comme directeur technique de jàmbaar oui te liggéey xale moom doo doo doo am temps dem fenn doo doo am éparpillé yow xam nga tey jii tu fais partie des rares entraîneurs sénégalais yi nekk <laughs> champion sur le terrain ah. et comme entraîneur comme entraîneur aussi waaw moo tax directeur technique Mayacine woo ma aussi pour ma jàppale au niveau de football de base des jeunes oui donc man ah, responsable de football de base yaa ngi à la direction ah, de football de base ba en place de filmer ko envoyé CD bi exercice maa ngi def en place pour jàppale xale football sénégalais euh, euh, euh, a il a 40 ans yaa ngi doon joué li ngay gis nii ngay tuuti yëpp di niroog junior xaleel il y a 40 ans mi ngi doon joué jaraaf. nekk capitaine u jaraaf. Eusebio bi mu demee yow la bàyyil brassard bi. nga nekk capitaine ñoom Mbaye Fall. ñoom Badou Gueye ñooñu ku nekk seen capitaine tu n'es pas un petit capitaine. donc il y <laughs> ans yaa ngi doon joué jaraaf. il y a 40 ans nga joué équipe nationale. dem en France di fa entraîner. il a fallu que doomu Sénégal fekk la fa pour nga ñibbisi. Mhm. mais lan moo empêché suñu fédération yi. di jël ci yéen ay entraîneurs nationaux parce que tubaab yaa ngi dellu si en Afrique ah alors ban compréhension ngeen ci am tubaab yi di dellu si et souvent ñi dellu si en Afrique gënuñ leen gradé. Mm-hmm. ce ne sont pas toujours des internationaux. Mm-hmm. tubaab yi fi ñëw du ñëpp nekk internationaux français. Mm-hmm. alors yéen vous l'avez été sous le maillot national vous entraînez en France lan moo indi tubaab yi dellu si. non d' abord d' abord je que d' si ñun la d' abord parce que euh, ñun ñu euh, def ñu lu war. Euh, xëccoowuñu daal xëccoowuñu xeexuñu kaw par pour pour pour dugg euh, pour pour nekk entraîneur. Mhm. ñun du ñuy xaar rek ñu woo ñu ñu ñu ñu jàppale la mais aussi en même temps aussi euh, dirigeants yi aussi ils font pas confiance au au au au locaux am tendance gis nit bu weex ñu ne moom moo diriger pays bi. et puis mhm. suñu biir tamit dafa am yoo xam ne rafetul si am na si biir nit ku ñuul boo jëlee jox ay millions ñun ma kii mérité ko. mérité million waaw boo jëlee kii nit bu weex fay ko. mu ne mu ne ñu d' accord man def naa cassette boo xam ne si euh, kaw footballeur bi ay heure de travail la la la la la ko defaree ji la ay caméraman filmé def xale yi mettre en en place mais loolu boo demee fédération ñun la noo lii la dafa fi cher dafa cherul. Mhm. donc bu doo keneen moo ko defar. duñ si wax sa duñ la wax donc voilà dafa am problème que dafa complexe dañu dafa complexe déjà ñun wóolu ñu gëmuñu ko ñun. Moussa Camara mën na Ela mën na entraîner El Hadj Diouf yu demee noonu parce que ñuy la fi jaar na ay gëj na ay. milliards soo xamee ni may. bu muy sol yàgg ko jëkk sol il y a absolument yow xaw nga joué papa. ah bien sûr papa gis naa mu football. Eh, gis naa papa non joué papa gis naa mu football. Ah, parce que Koundé est parti avant toi. avant toi avant moi la yu Portugal donc ñooñu ñëpp mais ñooy suñu jaar actuellement ñuy formé xale jàmbaar. Mhm. ñu ngi joué ay Idrissa Gana wala ñoom Karaaj mu ngi joué ñun suñu loxo lu ñuy jaar seen doom lañu waaw ah, ñooñu suñu doom Idrissa Gana sa doom ñooñu mu ñu leen entraîné ñooñu te ñoo ah, leen formé te lañ ñoo leen jàngal lépp si si voilà donc wax dafa doy waar loolu soxlul xëccoo soxlul kii mais ñu xam nañ suñu potentiel wax nga dëgg xam nañ suñu xam na lu ñu mun ak lu ñu munul donc euh, wax bu afi daal te xëccoo ñu dara <laughs> ñu nekk fii pour au service du football Sénégal au service du football ku ñu woow ñu jàppale ba ñu woowul ñu jàpp suñu njàmbur Moussa Camara ngi big boy <laughs> international champion du Sénégal vainqueur de la Coupe du Sénégal avec le Jaraaf de Dakar vraiment euh, palmarèsam carte de visite la mais nee na ma tout à l'heure am na pénalité bu ko mus a raté sa bu ko mus a naqadi ça arrive ah léeg-léeg daa gagné lépp mais am lu la mus a naqadi moom nee na am na benn pénalité bu ko mus a naqadi Moussa ban pénalité la. <laughs> lay mais ko bu bien non kii la woon quart de finale la coupe du monde universitaire. voilà championnat du monde ah, universitaire championnat universitaire y avait y avait bon à Montevideo. y avait en Uruguay en donc euh, euh, Sénégal daf dugal ñett dugal ñetti penalti Corée dugal ñetti penalti man maa war a. tiro bi la woon waaw tiro bi la woon. yéen ak Uruguay en ñu naan Corée Corée. en demi finale en quart de finale. waaw ñu dugal ñetti penalti man maa doon quatrième bu mu Sénégal gagné dem quart demi finale la du monde <laughs> ma ñëw ma daal dóor bal bi bi. maa woon nañ beneen penalty boo xam ne mu dugg dañuy du monde tam raté ko quoi. Malick Ndoye ñu def deuxième série ñu ñu ñu ñu ñu perte ay Koto yooyu di ay Koto di jooy ñoom ñoom Lamine ñoom la woon Koto ah Lamine Ndiaye lépp Lamine Ndiaye. lépp gars yi jooy di jooy jooy yu metti yooyu mais tey nag vraiment football du ñu football am ñu woon cette. Laye Sow mi doon entraîneur lu mu la wax Laye Sow Laye Sow kay moom c'était Laye Sow nag vrai compétiteur la woon il n'a pas su nu transmettre Euh, l'esprit de compétition bu amoon bu mu nekkoon si moom. Mhm. parce que moom dafa ne woon ah, xam nga entraîneur day bëgg a gagné. day bëgg a wane boppam wane Sénégal kii ñun nag on était inconscient. Mhm. xamuñu woon. Euh, Euh, comment la valeur de cette compétition ñu football rek football même pour tukki donc loolu moo manqué beaucoup sur le football Sénégal à son décès ndeysaan ah. à toi ah, mani Moussa Camara Big Boy hmm. fait partie vraiment de ceux ah. qui l'ont parce que daf koy faral di waxtaane ci champion du monde universitaire boobu en Uruguay on s'est arrêté contre la Corée en quart de finale te mënoon nañu jël Corée moo jël coupe du moo monde ki ñu éliminé moo jël coupe monde et au tir ah, un oui. joueur grand footballeur Lamine Ndiaye Koto. waaw nekk entraîneur national c'est pas pour rien Malick Ndoye. waaw ah, c'était une belle sélection waaw waaw le le l'avancement du Jaraaf aussi te mu le le le juriste là qui est décédé par notre tour bi qui est qui qui hmm. jouait à la gendarme. Euh, Ali Ali. Ali Sarr Ali Sarr. Ah, waaw Ali Sarr qui est décédé c'est vrai c'est une belle équipe. waaw le le milieu de terrain de la Linguère le grand du ko nekkoon tamit à Thiès aussi. oui. Euh, Babacar Ndiaye. waaw Babacar Ndiaye milieu de terrain du Tech. oui oui euh, le, le, le, de terrain aussi de la li Temungioloni, là, j'oublie son nom. Il y avait, on avait une ah, non Non, non, Dougui Yaber, uh équipe. Nous, nous jouions en première division à l'époque, donc c'est une très bonne équipe. Est-ce que tu Zahir Zahir Douane Zahir, Fatma Tourbi. Zahir Fall. Douane Zahir Fall. Voilà. Belle équipe. Très belle équipe. Belle équipe. Alors, quand Moussa Kamara Laye, Ganalé, Djaraf, international, bien que en France, avant euh, de concilier sport et études, fan que tu joué en France man je joué naa déjà Amiens en D2 mais bon boobu yàgg ma fa nag dem dem def joué naa Melun parce que le Melun bu nekkee en D2 juste le meilleur numéro 10 de de de du championnat de de France euh, man de maanaam monté la maanaam ñu raté accession en Ligue 2 bi. Mhm. joué naa aussi à Beaune. Mhm. Euh, en an D3 ma Martini Bruno Martini avec moi. Euh, ah Bruno ancien gardien de équipe de France ñoo bokk ñoo bokkoon club ñu doon joué ensemble Zizbigniew mën na entraîné aussi Auxerre. Mhm. mu international polonais. Vitesse rek aussi ñoom ñu ma ñu doon joué international ñu woon à l'époque donc vraiment. niveau bu bon xamoon nañ suñu valeur parce que on n'était pas parti dem na woon foofu pour jouer football. oui oui mais mënuñ joué Cantona wala nga joué José José euh, José Touré lay wax mais yow eh, looy def fii. Mhm. Ah, ah da ngay joué nekk meilleur homme du match. yow looy def fii nga des ci ah, milieu boobu waaw nga bon. bon comme ñoom ñoom on était pas on était ñu doon football à l'époque di nëbbatu di parce que suñu papa ñu doon tere football. waaw donc dañuy demoon Europe lu ñu am rek ñu jël. jël jël donc <laughs> c'est pas mais. talent baa ngi fi woon. talent baa ngi fi woon métti métti parce que ku ñu football ñu xam ne ñii mën nañu football. <laughs> Uh-huh. Batista mënoon jouer coupe du monde retour match mën ko def à Saint-Étienne. waaw match après son sa blessure coupe du monde bi. waaw da ko def mooy jouer à Melun ñuy ñuy jouer d euh, ñëpp. Eh, Jean waaw ñoom lay wax voilà ñu lay wax euh, gardien de but bi aussi. Euh, Castaneda Castaneda. <laughs> Jean-Louis Castaneda voilà. match yooyu joué nañu ko mais euh, nga nekk meilleur joueur si yi nga xam ne am nga talent. voilà te boo demee tam Clairefontaine si stade d'entraîneur ngay démontré. xam nañu am am xam nga football. mu ngi nii gaañ. <laughs> ci ñi ngeen gëjoon gis. ni ngi fi jógee ba léegi gisu leen ko. 78 ba léegi gisu leen ko moo tax indi leen gan gu mag a mag mag près de près de 40 ans. Moussa Camara mais foog nga teg ci big boy pour gars ñi ne ah big boy lu indi big boy Moussa. foofu rek xanaa Assane Ndiaye pourtant je l'ai vu la dernière fois ñu gis télévision Assane Ndiaye ma gis El Hadj Assane la moo nekkoon bu ñu nekkoon rue 1 angle 16 si booru Miami. si ah. derrière la poste. man dañoo amoon benn garage mécanicien man dama saboon nag dama doon fubal si si mbedd bi tout le temps tout le temps. moom xam nga moom mécanicien la kii big bi la je fréquente jamais du ma doon mag rek la la ànd ci mag laa doon loolu moo indi boy bandi bu Amadou Diop voilà mag ñu li indi boy bandi waaw moo indi sa big boy loolu la waaw même quartier Médina la <laughs> mu ne si ah, islam la nekk keroog mu gisatee j'étais j'étais content moom mu big boy à l'époque voilà voilà moom tuddee voilà boobu ba léegi sàtte sàtte rek am na yoo xam ne big boy <laughs> Camara Big Boy mais ku ma ko présenté su ma wul su ma niwul Big Boy il ne s'y il ne s'y retrouve pas mais euh, Moussa euh, dama lay jaale émission bi xaw na ko annulé parce que dañ ko programmé sa papa gaañu mhm. ci diggante bi dans la semaine Euh, xaw naa ko annulé ma ni non naa la bàyyil yow nga annulé ko soo ko annulé woon ma comprendre j'avais même quelqu'un en réserve. Mhm. léegi au nom des sportifs dañ lay jaal sa papa bi gaañu. jërëjëf ton père il aimait football dégg na. waaw football trop moom tamit waaw. et qui un des premiers membres fondateurs du PAI. parti africain de l' indépendance. parti africain de ah, l' indépendance waaw Mamadou euh, ñoom euh, ñoom Ahmed Dansoko. Euh, démb Serigne Mansour si ñëw na kër. rappelez ma son nom. Malick Camara Malick Camara membre fondateur du PAI. Euh, yàgg ànd ak Majmout Diop. voilà moom moo moo manifeste moom moo ko tàppe. Euh, moo ko bind moom kii la comme du ko Malick ñu xam ñu bëri xamuñu ko nag mais indépendance Sénégal ñu am ñu ko doon ñu ñu ko jëkk ñu ko jëkk liggéey ñu ko jëkk xeex. oui oui te ñooñu si la bokk loolu fierté la. te man tamit si si si loolu laa nekk parce que. dafa nekk bañkat. wax nga dëgg boo nekkee boo nekkee xale bu kii. Euh, de petite taille da ngay bañ. moo am fit parce que bu ñu koy arrêté ko prison pour des pour des man fekke naa ko. gis nga loolu yëpp yëpp. naa des années des gis naa difficulté yu muy travail gis na euh, kii de Moustapha Wade. waaw euh, président Ablaye Wade Moustapha Wade. ma ne avocat ah, moo ko moo ko compagnon moo ko défendre woon. si procès bi donc. loolu moo tax da ngay lu bare da nga xam. waaw nekk loo xam ne Sénégal moom suñu dëkk Moussa Camara mu ngi ni jaraaf big boy sa entraîneur Karim Dias mbaa gis nga ko. moom moom la je lui dois tout moo jaraaf moom. waaw moom moo osé ma jouer dans un premier temps. oui oui parce que moom it c'est ah, quelqu'un qui t'aimait ah, ah, assez bien bu baax la Karim bu baax assez bien émission bi le euh, les les Sénéf nekk en France di la gis. waaw waaw ñu la gëjoon a gis xam ne léegi danga nga ñibbisi da nga ñibbisi pour le moment. ci jàmbaar waaw waaw jàmbaar projet jàmbaar laa nekk actuellement si projet jàmbaar moom fi téye. Euh, bon parfois dañuy hésiter parce que bon dañuy gis loo xam ne jaarul yoon parce que am nañ compétence yoo xam ne euh, ñun mënuñ ko apporter football sénégalais mais bon malheureusement bon ñu ngi am suñu place pour l' instant. donc euh, jàmbaar moom moom si la si la l' année dernière. Mhm. liggéey bi ñu def jàmbaar liggéey souterrain la nag ñu doo ko parce que xale si xale yi ngay ñu koy yore. Mhm. pour man lu ñuy espère parce que de bon euh, am euh, am vécu bu ñu am ñun football war ñu ko bàyyi ay ñoom Roger Mendy euh, les les grands noms ceux qui ont donné pour le football Sénégal war nañu au moins présent au niveau de la fédération. parce que sans ces sans ces hommes je pense le football les anciens footballeurs def le football ñooy def football waaw. heureusement Cheikh ton ami Cheikh Seck ah, ah, ah, là-bas mais dafa xëy il Allemagne wala nga xool Bayern Munich xoolee xoolee staff gay benn fa nekk ancien yaa fa nekk. ñu fa nekk xoolee fa nekk. ancien ya ñoo fa nekk. wax nga dëgg. waaw jox leen cër tuuti ñu jox ñu ci artiste cër yi ancien footballeur yi. jërëjëf il le mérite vraiment. Moussa Camara big boy laa leen indil tey ci ñëwoon démb jaraaf capitaine équipe nationale du Sénégal Demba Wade en 1976 tenez-vous bien match bi ñu rappelé tout à l'heure moo di le premier. la première sélection de Baba Touré qui n'est pas entré qui est allé au Nigeria mhm. mais qui n'est pas entré Baba ton ami Big Boy mi ngi lay mi ngi lay saluer mhm. mais for naa tout à l'heure ci benn waxtaan foofu lay tëjee ni yàgg Oumar Pène da ngeen footballandoo mhm. Oumar Pène l'actuel chanteur yeah. et que da nga influencer sa vie parce que si Oumar Pène est allé chanter jaar na aussi ci yow comment ta arrivé mais Omar on a grandi ensemble on a tout fait ensemble parce que boo nekkee xale euh, de 15 ans mënoo mënoo football mënoo football délire bu baax la woon waaw football mais dafa nekk euh, xam nga fu ñu dëkkoon Derklé Kasso dafa am fief boo xam ne il y avait que des ñu ñoo fa nekkoon Amadou Diop euh, Grand Mbodj Djibi Ndiaye mm-hmm. ñëpp ñu fi la ñëpp ay ay ñëpp dañu quartier boo xam ne ça forme beaucoup de joueurs waaw quartier footballeur fii yaak léegi xam nga mun nga woy naa la jàpp yóbbu la nga dem woy <laughs> waaw par force da bàyyi football <laughs> il te salue. Ouais, non, mais bien sûr, Omar, nag vraiment on a on a travaillé, on a fait beaucoup de choses ensemble. Voilà, je l'ai dit assez souvent. Voilà, vraiment maa ko poussé mu dem mu dem woy. Et puis bon, il avait du talent aussi parce que euh, boo moo tax woy na jaraaf woy na gendarme. Ah, ah oui, mais pour jaraaf parce que jaraaf na aussi man man la waayam. Waaw mën na équipe am. Woy na jaraaf, woy na gendarme, ko woy na Lion yi. Dafa bëgg football ah, sax, dafa bëgg football parce que dama tàll commencé. Ah d'accord. Je disais à quelqu'un Omar Euh, dafa nekkoon entre deux mondes. Mhm. celui du foot. Mhm. et celui des artistes mu choisir celui des artistes parce que mënoon na football. Mhm. joué ak moom ci terrain de la fosse fële terrain lycée vent fële biir Dakar mais j'étais ébloui par sa facilité kon tu as été tu as fait le bon choix pour lui. non mais il a fait le bon choix pour lui bon parce qu'il a compris parce qu'il a plus de talent dans <laughs> dans le domaine qu'au football. Moussa Camara gëj a gis nag. parce que la dernière fois qu'on s'est rencontré c'était euh, en France il me semble. mais temps dama déggoon dafa feebar. waaw il va beaucoup mieux donc il va beaucoup mieux. maa ngi koy nuyu parce que sama la. voilà nga bokkoon nekk. voilà def def lu yu bare te yooyu mënu ma ko wax télévision. donc fu ngeen bokkoon nekk fan. ba <laughs> ah, fële direct rek Castor. ah Castor sama chambre université de temps en temps. ndeysaan waaw donc bu ñu jógee balaa foofu noonu sama nekk la de euh, pair. on était ensemble vraiment tous les musiciens ont des amis footballeurs. Mm. tous les footballeurs ont des amis musiciens. Mm, moo tax c'est dans une même euh, même il paraît que Youssou Ndour ku la faamoon la ah gis naa keroog bu ñëwee jàmbaar euh, xame xame moom mu dama ne ah, mu ñu da nga rajeunir football nga football nga ku leen ni kii sol damay équipe nationale il y a ans 40 <laughs> Jaraaf il y a ans di niroog ba tey junior uh-huh. kon sport ngook Moussa merci de jërëjëf jërëjëf sa papa yàlla la dëdd jàmm amiin amiin amiin ko nekkoon ci semaine u ma mm-hmm. invité nga ñëw maa ngi naan dana ko annulé te su mais ce milieu là aussi c'était celui mm-hmm. de ton père Moussa Moussa Camara jërëjëf mm-hmm. Big Boy jërëjëf mbokki ñëwoon